sallallahu alayhi wa sallam dellu si waat di ñaanal Serigne Touba ak Cheikh Sidil Muxtaar di ñaan sunu boroom bàyyi ko fi yeggale yéeneem yeggale ay naalam ci liggéeyal bu tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jawriñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ak siyaare bu baax mbooleem ëtt njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yépp mbooleem seex bu mas a ànd ak Serigne Touba mbooleem njaboot yi nga xamante ni bi yëpp seen i njaboot a ngi fi ñu leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel di sant yàlla sunu boroom moom mi nu mayoon waxtu wi daaw nu fekkee santaat ko bu baax yàlla mi nu mayaat tawfeex bi ñu fekkee waat am na ñoo xam ne fekke woon nañ ko daaw te fekke ko ren am na xam ne fekke nañ ko ren te fekke ko woon sant sunu boroom moom may fekke ak tal di nuyuwaat mbooleem taalibe yëpp ci wàccaay wi nga xam ne lu mat ñaar fukki fan ñi ngi koy waajal ci mbooleem rajo yi ak télévision yi ngir waajal bis bu am solo bii nga xam ne mooy bisub jàmbaar ju sell ja di Serigne Modou Khary Mbacké Pofdy kon bu ko defee dañu daal di njëkkante ak waxtu bi rek tàmbali li nga xam ne mooy waxtaan ki ñuy njëkk a jox kàddu gi mooy sëriñ Cheikh Mbacké mi nga xam ne mooy wax ci turu chef de village bi nga xam ne mooy dalal gan yi ndax fépp foo xam ne chef de village mënu faa nekk mënu faa dem xaj na ci ay xat-xat ci ay yitteem wala liggéey moom moo fay teewal euh, chef de village bi moo tax dañ koy jox kàddu gi mu ubbi dalal gan ñi nga xam ne suba ba nëgë ni ñoom it bàyyi nañ seen lépp ngir bisub sëriñ Modou Khary Mbacké Pofdy bi su ko defee ñu bàyyi ko kàddu gi kon sëriñ Cheikh Mbacké Pofdy ñu bàyyi la kàddu gi nga wax ci turu chef de village bi dalal mbokk yi nga xam ne wuyu si nañu woote bi aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala yi yéen mbokki taalibe yi sëriñ bi mu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak saw sant di leen wax dal leen jàmm te di leen masawu coona ndax fii ku fi ñëw ku nekk warees na la masawu coona ndaxam yoon wi soriwul waaye am na diggante yoo xamante ni dafa xaw a am suuf képp koo xamante ni bàyyi nga sa temps li nga jàppoon lépp nga bàyyi ko ñëw teewu ci bis bii sëriñ bi ak bokk yi yore nañ la ak cant kon sëriñ bi nee na ngi leen di sant mi ngi leen di dalal jàmm di leen masawu coona ci biir loolu euh, ñu ngi jël sunu kàddu di ko jottilil sëriñ Modou Mbacke mi nga xamante ni mooy euh, doomi sëriñ Amidoun nga xamante ni moom lañ dénk dëkk bi sëriñ bi mu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir nuyoo bi ñu ngi ci njëkk a nuyu kilifa gi nga xamante ni mooy sëriñ Cheikh Baara nga xamante ni moo fi teew teewaayu sëriñ di Muxtaar yàlla na fi yàgg ci sunu kanam te wér te yàggunoo noo digal yàgg koo jëf euh, sëriñ Cheikh sëriñ Ahmadou nee na mi ngi lay nuyu di nuyu njabootu sëriñ bi yépp di nuyu taalibey sëriñ bi yépp di nuyu dëkkandoo yi di nuyu am di jàmm yi euh, di dalal sëriñ Moustapha saw mi nga xamante ni moo fi teew ci teewaayu sëriñ Abdou Lahad muy maire de Touba di ci teg délégation yi nga xamante ni bokk na ci fi teew muy monsieur délégation euh, Pape Diop président bokk gis-gis teewal na ko fi sëriñ bu Boussa moo jiite délégation bi ànd ak sëriñ jiililoo ak soxna Daba Mbakke ak euh, ku ñuy wax monsieur Balla Faye ànd ca ak ku ñuy wax soxna Khady Thiam ànd ci itam ak ku ñuy wax soxna ñanga ñooñu ñooy ñi nga xamante ni ñoo fi teewal monsieur Pape bokk na fi ci ñi fi teew délégation PDS monsieur Madické Niang yónnee na fi ay ci délégation bu takku bokk na ci délégation yi fi teew Serigne fàllu Touré mi nga xamante ni moo jiite parti bi ñuy wax mucc ak xéewal bokk na fi ci ñi fi yónnee délégation monsieur jibi Ndiaye nga xamante ni mooy président GREP di secrétaire secrétaire général bokk na ci itam yi fi teew ay délégation yoo xamante ni ñi ngi jóge ci bitim réew bokk na ci délégation bi nga xamante ni ñoo jege Gabon ki ci jiite di sëriñ Alaaji Ali Sow ak sëriñ moodu Saaw ak sëriñ Issa Fall ak Adja Mari Mbay ak Adja Fatigé ak ajaa Kumba Fall bokk na ci seen sëriñ Lamine Mbaw <coughs> euh, ñi nga xamante ñoo fi teewal euh, président Jibi Ndiaye teew na fi soxna Mbootu Diouf ak soxna Mati Fall ak sëriñ Modou Sarr bokk na ci itam ñi fi teew ci bokk yi nga xamante ni siyaare nañ daal di dem muy sëriñ Baara Bousso mi nga xamante ni moo fi teewal mbooleem baykat yi yi nekk ci région de Diourbel ak itam teew na fi sëriñ Makhtar Fall moom sëriñ Omar Fall ànd ak soxnaam ak njaboot gi yëpp soxna bi Bintu Badiane ak ñeneen ak ñeneen ak mbooleem délégation yi nga xamante ni teew na fi bokk na ci presse bi nga xamante ni kenn desul ñëpp teew nañ fi buñ ci limee dañuy juum. ak ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu sécurité wu muy gendarmerie commandant brigade bi biñ ko waxee taxaw na ci taxawaay yu rafet yebel fi ay mbooloo ñu taxaw am sécurité bu baax a baax kon ñoom itam ñi ngi leen di jot li seenu cant soxna ñanga moom it teew na fi nekk croix rouge moom it ñi ngi koy dalal jàmm euh, sëriñ bi nee kon mi ngi dalal ñëpp jàmm góor ak jigéen gan ak dëkk te di leen xamal ne woote na wuy si ngeen ku woote ñu wuy si nag kenn amul seenu fay waaye nag dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal mu yàgg koo woote ngeen yàgg koo wuy si tañ tase ci ak ngërëmul sëriñ bi ah lii nga xamante ni moom la suñu borom dële ci képp koo xamante ni mi ngi jokk ak bokk ak di def lu baax sëriñ bi nee na mi ngi ñaan sunu borom kenn ku ci nekk mu defal la ci fay la ci lu kawe sa njort tànk yi ngeen fi ñëwee ak tànk yi dellu yëpp di tànk jàmm ak xéewal ak xéew ak mucc sëriñ bi nee mi ngi koy ñaan di leen ko ñaanal yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aasubillahi min alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin zawi ridwaani wa tamkin wa ala alihi wa ashaabihi alquril mayamin bokk yi ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci pàkk bu barkel bii di daarul xidmati tuubaa pëf di di am mbégte bu baax ci jataay bi ni nga xam ne ni la composé woo ci ay nit yi lislaam nit yi qualité teew fi ci jataay bi ngir fàttaliku sunu maam ju baax ju liggéeyal yàlla ba mu gërëm ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba mu gërëm ko ñu di ko fàttaliku tey di ko ñaanal ci kilifteefu sëriñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Mahamadou Xari Mbacke ak mboolem bunt ko sëriñ Maodo Xari yi góor ak yu jigéen yi ñëpp daje nañ ci barab bi tey ngir fàttali ko ñu yëkkati kàddu nag ci leeral lenn ci kilifa yi fi teew yi nga xam ne bind nañ ko jox nu ko ñu jàll la ci kem lay kàttan ci biir loolu dañuy tàmbalee ci sëriñ Moustapha Mbakke moom sëriñ Saam moom sëriñ sëriñ Modou Xabbaan sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Ahad Mbacke bokk na ci ñi fi teew ak sëriñ Yadaali Mbacke moom sëriñ Abdou Jadi Weli teew na fi ak sëriñ Moustapha Diop Darul Quddus ak sëriñ Sam Mbacke moom sëriñ Gede Mbacke ak sëriñ Mamour Mbacke ibnu sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Xaadim Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Gaynde ak sëriñ Modou Mbacke ibnu sëriñ Mortada Mbacke moom sëriñ Falilou teewal fi sëriñ Mortada moom sëriñ Falilou ak sëriñ Alxaaji Mbacke ibnu sëriñ mahmudan mbàkke moom sëriñ masàmba ak sëriñ xaadim mbàkke njakkalak ak soxna maam fati mbàkke moom cheikh amadou moustapha moom soxna maam fati maraymaloo ak sëriñ moustapha mbàkke ibnu sëriñ mbàkke madina délégation maître ma dikka ñaa sëriñ cheikh mbàkke bara euh, sëriñ fàllu mbàkke sëriñ moodu kara mbàkke ak masayar kan ak Mamor Saw ak Serigne Cheikh Seck délégation président Pape Diop teew na fi ni ko Serigne Cheikh waxee ànd ak délég mbooloo mu takk Serigne Bassirou Bousso moom Serigne Thierno Assawalo jiite ko. njabootuk Serigne Mouhamadou Ajara Mbacke ñëpp fi lañ teew fi lañ yandu ànd ak Serigne Fallou Mbacke mi xalif bi ak mboolem ay rakkam ñu bokk ak ñoom bés bi Serigne Fallou Mbacke moom sëriñ mbakke soxna ak sëriñ Basiru Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Xafoor xam naa xel day fattu bi may tàmbali damaa waroon a njëkkee sëriñ Cheikh Baara Abdul Ahad mi fi teewal sëriñ Sidi Maxtaaw kon loolu sëriñ ñu ngi koy jéggalu njuumte la ndax yoon wi moo baaxoo loolu matériel doomu aadama moo waral ko kon sëriñ Cheikh Baara ñu ngi lay jox wàccuwaay wi la yàlla jox di la sant bu baax ci sa taxawaay ci sëriñ bi ndax fu ñëpp taxaw waroon a taxaw nga taxawee fa taxawal taxawal ñu fa ñu ngi la ci sant bu baax da di la ñaanal te di la feddali suñu kóllëre bu baax a baax ci dëkk bi ak mboolem dëkk bi ndax dangay féete sëñ bi foo xam ne sëñ bi sax di ko yëg ndax man loolu xam naa di dara ndax man jëflante nga ak man ci bi sama wayjur bàyyi ko nga dox ba yëg ko rek ñëw jàdd fa fi teewal fa sëriñ bi jëf fa loo xam ne xam naa ne loolu mbir mi sëñ bi nga ciy dakk yàlla la ko suñu borom fay te loolu murid gépp nga ko defal sëriñ maam Baara Mbacke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Aziz ak soxna maam Fatim Mbacke wilaya ak sëriñ Modou Diop chef de village bu Darou Manane waa kër sëriñ Abdoulaye Diané sa sëriñ Basirou Diané jiite délégation bi ñoom dañoo tuddee sëriñ Mouhamadou Khari Mbacke bis boo xam ne dañu ko dudd ak conférence boo xam ne ñu ngi ko yëgal bokk yëpp ak wëllëre yi ak taalibe yi moo war a tolloog talaata altine altine lay tollool la 30 incha allahu danañ def communication boo xam ne dañ ñi ko seq ñëpp danañ seet barab bi ñu daje ñu defe ko départ fa ngir jëmmal sëñ Modou Khari Mbacké ndax ñoom ñaar dañoo bokk bis bu leen sëriñ Touba wàcce ci gànnaar ñuy dabu mbégteem sëñ Touba moomu ba tax ñu tudde sëñ Modou Khari bis boobu ba tey sëñ Alxaaji Mbacké moom sëñ Abdou Khari teew na fi ak sëriñ maam Thierno Mbacke moom Darou Salaam mi ngi ci jataay bi àndanteeg sëriñ Amidou Mbacke moom sëriñ Mamour Sikaab fekkente fekk sëriñ Xaadim Mbacke Saam moom it mi ngi ci jataay bi jiite délégation ko sëriñ Mbacke Soxna ànd ak sëriñ Mbacke yónni ak délégation Fallou Touré Soxna May Mona Lo moom it jiitu euh, sëriñ Baara Mbacke Bito moom sëriñ Moustapha Bito mi ngi ci jataay bi. ak sëriñ Abou Mbacke moom sëriñ Mahmoudan Jobbe ak sëriñ Jiile Mbacke moom sëriñ Mahmoudan ak sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Moustapha Massamba ak sëriñ Cheikhouna Mbacke moom sëriñ Sam Mbacke mu sëriñ Madje ak sëriñ Cheikh Mbacke Omar ak sëriñ Mamour Mbacke Toubatul ànd ak délégation ba toog sëriñ Sidi Mbacke njabootam ak ak eh, doomam la àndal ak délégation sëriñ Cheikh Gaawaan kay teew na fi. sëriñ Mamour Bousso ànd ak soxna Waalo Mbàkke soxnaam ak sëriñ euh, Fallou Mbàkke ak sëriñ Cheikh Mbàkke Ngaya ak sëriñ Fallou Mbàkke moom sëriñ Cheikh Baara Mati lay sëriñ Fallou moom sëriñ Cheikh Baara Mati lay may jégglu ñu may ñu tuuti ñu taxaw foofu ci sëriñ Cheikh Baara ndax dëkk bii di Daarul Xidma lépp luñ mës a bëgg te di ko wut sëñ Cheikh Baara ànd na ko ñoom bii bi biñ ko dee wut dafa wax ne sama dëkk ba yi du am courant mukk lu dul pour si dañoo taal seen courant kon su mbooloo mu dajee war nañ koo sant ñaanal ko suñ borom yàggale fi te wéral ko dëkk bi biñ ko waree fàkk njëkk mu ko yëg bind nañ meeru dëkk bi leetar woo ko téléphone jot ko ba tey tontuwuñu waxut lu ci jëm loolu des koy leeral sëriñ Cheikh Baara ba mu ko yëgee da caa daal jàpp fexe bañ fàkk dëkk bi fekk yoon fàkk yoon wi loolu it ñu ngi koy sant bu baax sëriñ Cheikh Baara ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba lim yéenee liggéeyal yoonu murid yëpp suñu borom may ko kàttan gu ko amee waaw ci biir loolu sëriñ Ahmadou Makhtar Mbacke moom sëriñ Sidi Makhtar ak waa kër sëriñ Mbacke soxna ni ma ko waxee sëriñ Cheikh Omar sëriñ Cheikhouna Mbacke moom sëriñ Madame ak soxna Loota Mbacke soxna Loota Mbacke nee mi ngi sant waa Daïra Taïf ak njabootu sëñ Mandoumbe Mbacke gi nga xam ne ñoom la fa bokkoon ne kon sëriñ Mamoun Niass mooy dugg si noonu ñu dalal ko. sëriñ Maamun Ñas bu kaw Kawlax mooy dugg si noonu ñu dalal ko soxna Loota Mbàkke ak waa daairatu Taif ak njabootu sëñ ma dumbe Mbàkke gam fa nekkal ñee na ngi sant ñëpp te di leen gërëm bu baax a baax si ngeen di ngeen taxaw liggéey bi sëriñ Mahmoudan moom sëñ Mourtada ak sëriñ Jiililoo moom sëriñ Cheikh Lo moom sëñ Abdourahman sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Modou Xabaan ak mboolam njabootu sëriñ Mor Penda Mbàkke teew nañu fi soxna maam Boussa Mbàkke moom sëriñ Ahmadou ànd ak soxna maam Fatim sëriñ Saam Dulo ak mboolam ñi ñu àndal ñëpp teew na fi ak sëriñ Sidi Mbàkke mu ndaam ak mboolem daayira yi bàyyi koo Ndakaaru yu bàyyi koo ci sëñ Moustapha ak yi bàyyi koo yeneen daayira yëpp ci dëkk bi ak ci biir senegal ak délégation maire bi nga xam ne sëriñ Moustapha Saw di suñu wóolare moom it di ku dëkk bi ñor moo ko jiite. ci biir loolu ñii ñëpp biñ fi teewee ñu ngi jéggulu fekki nañ fi ki nga xam ne mooy boroom bis bi di borom màggal gi di cërub sëñ Modou Khari ba tey bokk ci cëri sëñ Modou Khari ci kër sëñ Touba nga xam ne moom la waroon a jiital ci lépp. nga yee mooy kilifa jataay bi nga xam ne way juróom sëriñ Modou Xari moo ko jur muy sëriñ Modou Mamoun Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad nga xam ne moom bis bi ñi fi ñëw ñëpp moom lañu fi ñëwal mooy kilifa jataay bi li ñuy wax lépp lañ koy wax moom it mu ngi sant mbooloo mépp te di leen gërëm te di la ñaanal ndax moo waral buñ limee ñëpp mujj ko xam ne leeral ko ne ko ñuy ñëw fi teew ci bisu maam bi sëriñ Modou Xari sëriñ Modou Rokhaya Mbacke moom sëriñ asgede ak sëriñ mooduloo moom sëriñ Cheikh xam naa kon liñ jotoon a tënk jox ma ko lii mooy li fi daje sëriñ Mamoun Niass moom it teew na fi jóge Kaolack ànd ak délégation bu takku moom it ñu ngi koy wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ci biir loolu ñu daal def ab tënk ci sëriñ Mouhamadou xari mbakke xam naa fàttali leen may kenn du ko fàtte ni ma ko waxee sëriñ du Khary doomi maam Haramin mbakke la maam Haramin maam ma xaram Mbacké la kuñ tuddee ñu naa ko Haramin moom baati soxna baati Njaay da koo jur baati Njaay mi ko jur moo bi say bu ñu nekk buur ba Jolof ñoo bokk ndey ak baay ñu naa ko baati Njaay sëñ Modou Khary Haramin Mbacke mi ko jur Sayar Soxna Bousso moo ko jur Sayar Soxna Bousso moom maam ma Haram Mbacke moo ko jur. sëñ Mouhamadou Khary di doomi soxna Faati Balla Suxra mi nga xam ne mooy caatu mam Aysa mu gën àddina ci Mbacke Bawol ci diggante 1871 wooy juróom yar ko jàngal ko alquran bi nga xamee ne sëriñ bi mi nga sos yoonu murit ay atam bëriwut. ndax doola wooba weesuwul fukki at ak fukki at ak benn waaye bi mu xàmmee xam na sëriñ bi moo xotti baax ci askan wi mu taxas dem fekki ko jaayante ak moom ci ndigalul way juróom sëriñ bi jaarale ko fi mu daan jaarale ay ñoñam ak ñi ko jiitu ba jàngal ko alxuraan maam na boroom Daarul Muxti jàngal ko lu bari ci xam-xam ak boroom xam-xam yu bari mu yar ko yarug lislaam bi sëriñ bi ñibbisee ci géej gi fekk alxuraanu noppi bi muy dem gànnaar bokk ci ñi nga xam ne sëriñ bi da na a yóbbaale gànnaar yara ko fa tarbiye ko taraxiye ko tasfiye ko ba ci ñaari ati gànnaar yi la ko sëriñ bi yewi mu ñëw ci dëkk bu ñu wax curang ci kajoor samp fa daara boole fa jàng ak jàngale di liggéeyal sëriñ Touba. bi sëriñ bi ñëw jolof bi sëriñ bi ñëw jolof cura ngoogu la ko fekkee ci kajoor mu di fa liggéey boole kook jaamu yàlla ba wax na ni ci atum 1907 bi sëriñ Abdoulahi Mbakke di gën a àddina foofa la sëriñ bi laaj na fere yi ku fi gën a jege ñu ne ko Mouhamadou Xari moo fi gën a jege mu ne ko nañ ko wax ne ko ñëw nañ ci barab bii mu dajale lépp lu mu am ak addiyaam fekk sëriñ Tuubaa Jolof ci këram gi ñuy wax Daaru Rahmaan indi fi addiya yu baree bari yu takku ginnaaw bi dem na ci Saalum sanc fa dëkk bu ñuy wax misro ci soriwut wax ngona boole fa di fa jaamu yàlla ak di liggéey ginnaaw bi sëriñ bi jox ko ndigal mu ñëw sanc ziin ca wetu gusaas ci gusaas daara ja xaayaan la tuddoon mu defaa jaamu yàlla di fa liggéeyal sëriñ Touba ba sëriñ bi jox ko ndigal ci diggante 1917 18 mu ñëw sañ dëkk bii nga xam ne mooy daarul xidma bi mu sañcee daarul xidma fi la nekk di fi jaamu yàlla di liggéey ci biir loolu ci biir loolu xam naa bu ñu mënoon a jéggal wàññi wax ji dana ci am solo ci biir loolu sëriñ Touba xam nga ne ni mu fonke soxna jaara ak cër bi mu ko jox bis woo na ko mu ñëw mu jox ko wisar woo xam ne sëriñ Masamba Mariam alkokki yu moo ko wisar def ko ci soxna jaara sëriñ Touba jox sëñ Modou Khari li ñuy wax ak ngise goo xam ne buuma ca nekk jox ko wesar wa ne ko dama bëgg ñëw dem ca barab ba boo àggee nga wutal ko xàmmikaay soo nattee nangami xasab fa la tànk ya toll boo nattee nangami xasab fa la baba toll sëriñ Mouhamadou Khari dem poroxaan wutal barab ba ànd na fa ak taaliba yu bari ñu ci mën a tudd moom defaree barab ba ba noppi daa di wesar wesar wa daal koy def ay way tudde xëcc dëgg mat la bu ridwaan matoo na ñeent fukki bayit ak ñett tàmbulee ko alhamdulillahi li maali qadal araba amdan yazuuxu liya aamaala wattalaba zakartuhu jalla zukrin la ntihaa lahu ala alladi duunahu ajdaaduhu nujaba ala alladi zaa maa shaa al ilahu yashaa allahu maa shaa wa shaa man kawnuhu wa ajaba ca biir xasida ga melal na fa soxna jaara ji ay jikko yoo xam ne ak taaral ko ci melo yoo xam ne melo yu lislaam yoo xam ne jamono du ko fàtte jamono soxla na ñu nafaraat jikko yooyu bay wax soxna jaara na ko du doy dal kenn du ñaawal jëm ci kenn dafay jëfe ndigalal boroom këram ci toppee ko ci ndigalal boroomam walam tuxin ahadan walam tushin abadan salimatun barratun man haba ataba ganiyatun bilmazaya an qinaa walaha tuqri wa tubdi ma wax ba tàyyi ne xasida googu sëriñ Moodu xëy tënk ca bëri xasida ga ñaana la fa ak njabootam loo xam ne war na bis bu set ñi di ko delloo njikkal ci ëttub sëriñ Tuuba tey gën a boole seen bopp ñu nokki benn ndax ca biir xasida ga ma ngay wax ne la hatalabtu min alxafaari maxfiratan tun jili iyaala nga musal sama njaboot min a niiraani kulli wabaa na nga musal sama njaboot ci sawara ak wépp tiisi àddina del wax ne la haatalabtu min al xafaari maxfiratan walastu amilu minhu dahri mutashiba yow yàlla mi nga xam ne yaay jéggalaa konub aji jéggale ji ku ñuy jéggal kuy jéggalee ci sa daraja lay jéggalee maa ngi lay ñaanal nga jéggal ma jéggal sama njaboot te lépp lu ñu askale la jëm ci àddina rëy man Mouhamadou Khary bu ma dox jëm ca kon sëriñ Mouhamadou Khary ngoo Euh, ñu di woo ci bisam bii ngeen wuyu ngir sëriñ Touba te moom da ko tànnoon ne ku yilif sëriñ ku yilif Touba na ko yilifaale ba sun borom fekk si ko ci lu dëkk bi Touba yiiraale ko kon mbalaanum sëriñ Touba mi nga xam ne rëy na yaatu na tal na ku ca génn jikkoo la ca génn ku ca dugg jikkoo la ca dugal yàlla nañu sun borom yiir mbalaan moomu mbalaanum sutura mudul lañ di xottiku mukk ndax sëñ Modou Moustapha moo ko waxoon xista boo xam ne sëñ Modou Moustapha moo ko waxoon mooy fii ma tàmbale woon bi mu fi waaj a bàyyi dafa dajale ak njabootam ba njaboot képp daje sëriñ ma dina mu ci jataay ba sëriñ Cheikh Fatma ak sëriñ Dan ak sëriñ Aliou ak doome bi mag yépp mu ne sëriñ Cheikh ne ko Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko damay fi waaja a bàyyi waaye nangeen ngeen xam ne gungeekat àgg baaxu ci ndax dama fi waaj bàyyi ko waaye dinaa leen fi bàyyee ñett dinaa leen fi bàyyee bokk yi ak taalibe yi ak seen bàyyu ndaw yi ne ko bokk yi mag yi na bokk ko bokk man kuy sama baay def naa la ngay baay kuy mag def naa la ngay mag kuy rakk def naa la ngay rakk ku ma toolal def naa la ni sama bopp bi ma ko defee ba noppi nag gisuma lu ma lu ma wàññi ne ko taalibe yi nag li sëriñ Tuubaa lañu su ngeen doonee ay sëriñ ñu doon ay taalibe su ngeen doonee ay buur ñu nekk ay dëkk lépp yàqu waaye nag dama wuuteeg yéen ay bàyyu ndaw man samay bàyyu ndaw lu ñu baax baax ak lu ñu rëy rëy daraja li ñu wax buñ ci génnut maay seen sëriñ yéen seeni bàyyi nag luñ yéen yéen nag lu ngeen baax baax ak lu ngeen rëy rëy darja seeni bàyyi ndaw yooyu mun luñu leen di nekk seeni sëriñ ndax yéen ñoom sëñ bamba leen jur te yéen sëñ bamba du leen jur mukk waaye man li may liggéeyal sëriñ Touba day bu ngeen góor góorloo doo ñu leen sëkk waaye na ngeen xam ne nag sëñ bamba ma yor moo ma jur moo ma yar waaye jub rek a ma doy waaye ni ngeen yëg ne mbaalaalum sëñ Touba mii rëy na yaatu na tal na ku ca dugg jikko ju cay dugal ku ca génn jikko la cay dugal wa kullu aamin wa antum bi xeyrin wassalaamu aleykum wa rahmatullah auzu billahi min alseytaan rajim bismillahi rahmani mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi maa ngi leen di nuyu gën jaarafiti nuyoo muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidi Moxtaar Mbakke mi nga xam ne mooy xalifa général de Mouride suñu boroom yàggal ko ak mboolem taalibe sëriñ Tuubaa di ci teg mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mouhamadou Khary Mbacké Kof di di ko ñaanal suñ boroom may ko wér te dëgëral ko ndax li waral loolu liggéey bi rafet na rafet goo xam ne du jamono ju nekk moom mi ngi fiy nekk am na jamono yu ko fiy fekk am na jamono yu ko fi dul fekk waaye mbokk yi nga xam ne ñoom la bàyyi fii te sëriñ Khadim Mbacke nekk fi ak Serigne Moustapha ak Serigne Cheikh ak mboolem mbokk yi ñu ko bokkal danañ rafetal jataay bi rafet goo xam ne fépp fu ax Ahmad waroon a dem te nekku fi ñoom ñoo fay dem mbokk yi fi nekk yëpp it mën nañoo seere loolu muy ñoo xam ne sëriñ ax Ahmad nekk fi ak mu ñàkk fee nekk ñooyam li ñu war a def ci mbokk yi lépp ñu ngi koy def loolu maa ngi leen ci sant di leen ci gërëm ndax ñëpp lañ ko defaaleel mboolem kuy njabootu sëñ Modou Khari rek defaaleel nañ la ko ñi ngi jàll ci suñu bokki bopp yi nga xam ne amul guddi amul bëccëg waxtu wuñ leen woowee ñu ñëw te it duñ na naaj na duñ na guddi na te dara wërlu ko dul ak mbokk ñoom day xam nañ li nga xam ne moom la yàlla wax ci jox ko ak bokk xam nañ ko te jëfee nañ ko muy ñoom xam nañ ne ñun liñ bokk mu ne su ko séddoo ba tax na kenn ku ne jàpp nga ne yow sa bopp sa moroom moo la gënal boppam ñoom jëf jooju wane nañ ko ba tax na gox yu fasantikoo yi nga xam ne moo wër Tuubaa mbooleem fu fi kilifa ne teew nga ci jataay bi wala sa ndaw teew na te it loolu firnde ji ma ciy joxe mooy su ngeen xoolee at mu nekk màggal gi dafay gën a yokk te mbir bu yokkut dafay wàññiku xam nañ ne mbir yi mi ngi yokku mi ngi jëm kanam te dara wëralu ko lu dul ay mbokk yu ànd te bokk li ñu bokk te dëggal ko te Sëriñ Tuubaa rek ñor leen loolu moo tax mbokk yi nga xam ne fu ñu leen woo ñu wuy suñu amul kenn koo xam ne yaa ngi ci biir tànt bii te Sëriñ Tuubaa ñoru la leneen loo leen woowoon lu dul sëriñ bi doo leen gis am nañ fu la ju toll ne Sëriñ Tuubaa rek a leen ñor te nag ñun suñu borom dimbale nañu dimbal loo xam ne duñ leen woo lu dul ci Serigne Touba ndax amuñu lu ko ëpp muy góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi daje Serigne Ahmadou Mbacke mi ngi leen di sant ndax woote ñu wuy si la yombut ku woote ñu wuy si la rek sas nañ la sas woo xam ne mënoo ci lu sant ak it fas yéene jotal fépp foo xamante ne si am na lu fay xew te sëriñ bi niw fi am nañ ndaw yoo xam ne ñoo ko fiy nekkal te ñu ngi cay dem te ñëpp xam nañ leen ah sëriñ Moustapha Mbacke barki démb damaa dégg mu wax ay wax ci rajo bi wax yoo xam ne lu ko gën a doon dëgg gisuma ko ndax sëriñ Modou Mbacke sëriñ Xaadim ak sëriñ Moustapha ak sëriñ Cheikh mii amul génn kër gooy def ci Touba aw xew am fat doo leen gis te dara waralu ko lu dul seenu jotal ak seen bëgg lu baax te bokk yëpp dañ koy defaadal amuñ ci xej seen amuñu sëñ bi ne amuñu sëñ bi néew fi lépp lu ñu duñ ca tànk xam ne ña ngi dem ni ca war a demee loolu ñu ngi leen sant di leen gërëm te di leen xamal ne bokk yëpp sant nañ leen ci gërëm nañ leen ci naw leen ci bokk yi nga xam ne nag ñoom ñoo fi ñëw wuy suñu te woo leen ñu wuy si ñun amuñu seen fay amuñu seen fay Serigne Touba rek lañ leen di bàyyeel ndax xam nañ ne jot amut temps manqué na waaye nag sëriñtuwaa jaral na leen ko muy ñi nga xam ne ñoo bokk maam maaram ak mbooleem taalibe yi ak mbooleem jigéen ñi ak góor ñi ak jigéen ñi lii nag képp koo xam ne yàlla dogal na doyu la amul leneen lu lay doy woote say bokki boppi wuy si la saal bi boo jëmee ci tànt bi ni mu mel at mu jot suñu borom mi ngi def sutura muy gën a yokk te dara waralu ko lu dul dañ leen a woo ci Serigne Touba rek di ñaan Serigne Touba mi ngi leen woo yàlla leen fay ngën ji fay ñun nag amuñu fay waaye am nañu yéene ñi ngi leen di ñaanal suñ borom defal leen sutura defal leen xéewal ak yërmbaande ak borom bis bi nga xam ne moom lañ koy wooteel ba lépp luñ fi jëf mu nangu ñu ko te bis bi yàlla buñ ci gis bopp wax ji nag du gudd waaye li muy gàtt gàtt du tee li ma bëgg a wax mooy mbooleem njabootu sëriñ Modou Khary Mbacke gi fi teew yépp ak sët yi ñi ngi sant mbooleem jullit yoo bu fi teew ak bu fi teewul di leen ñaanal te di leen xamal ne lii sëñ Modou Makhtar Diop mi wax loola rek laay dëggal am na ñoo xam ne ci suba lañ fi ñëw am ñu fi ñëw ci bëccëg am ñu fi ñëw ci guddi gi am ñoo xam ne dañoo bëgg a bokk ak ñun bi ba mu jeex loolu ak mbokk mënu koo weesu nañ leen gën a góor góorlu te gën a jàppante ak suñu bokk yi te sant leen te xam ne sas nañu ñi ngi ñaan nag suñ boroom mi nga xam ne moo mën a dëgëral ab jaam mu may ñu ay xéewal ak xel mu leer nañ ak xol bu laab buñ mën a àndeek bokk yi ci barkeb Sëriñ Tuubaa loolu rek la ñuy ñaan di ñaan suñu boroom dëgëral ñu dëgëral sëñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifu sëñ Modou moom sëñ sëñ Mouhamadou Khari Mbacke ba lépp lu mu yéene ci dëkk bi yéene ko ci ay rakam suñu boroom defal ko ko ndax dëkk bi kat lépp lu fi waay def sa bopp rek nga ko defal ku daan ñëw ba tey jii nga ñëw xam ngeen ne ak yokk am na nañ gën a santaat yàlla te ku santut yàlla nit ñi doo sant yàlla ñun nag sant nañ leen gërëm leen di ñaan. jataay bi yàlla bu mu doon suñ jataay bu mujj yàlla leen sëñ Tuubaa defali xéewal ba képp koo xam ne nii indaale woon nga fii jàngoro suñ boroom saafara ko ba yitte juñ mën a amati ci mbooleem taalibe yi sëriñ kenn rek mën ko cee faj ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim sadid lisaan yi naxul janaan yi safi amaan yi wasit baraay barkib Seexul lu baax ñu yi di kàddu yi ndigal bàyyi ko ci sëriñ ahmadu moom sëriñ baara moom sëriñ Modou Xari di xalifa ëtt bi di ko nuyu baax di ko siyaar lu njëkk loolu ñuy ñaanal Cheikh Seydil Mokhtar mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ba li mu fas yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu ànd ko ak jullit ñëpp ak taalibe yëpp ci barkeb Cheikhul Xadim di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoo ko fi teewal bi ci jiital Cheikh Mbaar Abdoul ñu ngi lay siyaar bu baax ak mbooleem ñi fi nekk ñëpp dikkati kàddu yi ci ndigalul sëñ bi ci daaray alxuraan yi nga xam ne nii lañ leen santoon ci bis bi matale nañ ko ci matale googu ñu ko matale ci la sëriñ bi wax na na njëkkati kàddu jottali leen cant yi ba yëg ne yëg ne ne ba mu yëg ne bis bi dara gënu ko cee ñor lu dul alxuraan ak xasida yi Sëriñ ak salaatu ala nabi yi ñu fi def ndax bésub ñaan la di ci jiital waa daaree Ngasamba yi nga xam ne at mu jot danañ jàng ñeent fukki kaamil ak benn yooyu indi ko liñ fi jàng ci kaamil bari na lool yaatu na lool dañ ko bind sax waaye dañoo taamuwut lim gi ndax biñ koy def jëmmi Sëriñ Tuubaa ji rekk taxoon ñu koy def ak wane ne bis bi li ci ëpp doole ñaan la ak màggal ak cant ndax ki nga xam ne moo sancoon ëtt bi di Sëriñ Moodu Xari yi lii nga xam ne sance woon na ko dëkk bi mooy jàngale alxuraan jàngale xam-xam yar nit ñi ci taalibe ak pastéef te loolu bi mu jugee fii yóbbaaliwu ko lépp da ko fee bax kon nag suñ wootee lu mel nii pastéef bu ñu toll ñëpp am ko ci ba ci ndakaaru sax am na ci ay lim yuñ jot yu fa jugee ci alxuraan ak xasida ak ci dëkk bi ak fépp kon liggéey bi yaatu na màgg na di wax na itam sëriñ Ahmadu ñi nga xam ne ñoo doon jàng alxuraan ci dem ak daara yi ñoom it sant nañ la ndax li tax ñu sant la mooy dimbale gi nga leen dimbale ci liggéey Sëriñ Tuubaa ndax képp koo xam ne dalaa woo ne la kaay ñu ànd liggéeyal Sëriñ Tuubaa kooku daf la bëgg dimbali ndax dama dégg ñu wax ne kilifa gu mag ci mag ñi ñu wax ne dafa mas a am tuur tànk ñëw ci sëriñ bi wax ko ko dinañ ciy tudd tuur sax di wax sëñ bay saar sëñ bi ne ko demal nga tuddee ko ki nga gën a bëgg ca gën ko fonk mu dem tuddee ko boppam ñëwaatee ci sëñ mu laaj ku mu ne ko tudd naa ko mu ne ko tudd kooku tuddee mu ne ko sama bopp mu ne ko ana loo ci jublu mu ne ko da ne ma tuddee ko ki nga nga gën a bëgg bëgg gi ma bëgg sama bopp moo tax ma jël sama jëmm ji jébbal la ko kon loolu pëstéef la ak pas-pas ndax képp koo xam ne jaayante nga ak Sëñ Tuubaa sa jëmm jooji yëmari woo ko dara ndax sëriñ bi lim doon woote lépp mooy lii rek ñu woote ci ëtt bi ndax démb mën nañ ne daara ji fii la woon ndax liñ fi jàngale ci xam-xam jàngale ko ci jikku yu rafet génne phénomène yi nga xam ne moo fi xew sëriñ Mbàkke Abdourahmane def ko ak sëriñ naa Buso ak sëriñ nga xam ne jàngalaan nañu ci ñu fi toogoon ñëpp kenn ku nekk am nga cib cër ñu génne ci poñ yu bari yoo xam ne kilifa yu bari fekkuwuñ ko waaye ñu bari diglu nañ ko ci phénomène jamono fi mu toll fañ daanelee mooy solution bi mooy delluwaat ci alxuraan ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi kon nag loolu sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di sant ñi nga xam ne si nii ñoom nga jiitaloon ci liggéey bi kenn teg seeni doom ci kanamu liggéey bi ñu liggéey ko ba mu mel nii mu mel di sant mbooleem koo xam ne yëkkati nga ci sax ab sées teg ko fenn ngir kenn toog fa ñu ngi lay sant di la gërëm ni ñu ko santee ñi doon jàng alxuraan ak xasida wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ngeen jëf ñu ngi ñaanal sëriñ Sidi Cheikh Muxtaar Mbàkke yàgg fi lool te ànd ak wér eh, sëriñ Ahmadu Mbàkke ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay siyaare di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci kaw kaw tribune bi mbaa ñu nekk ci suuf tribune bi di nuyu sëriñ ab laat Mbàkke man waru moon a wax sax gannaaw teew na fi fu mu teew rek ñun duñu fa jël kàddu dañ koy bàyyee kàddu gi mu wax ko ndax mooy sunu kilifa ñu ngi nuyu góor ñi ñu ngi nuyu jigéen ñi sëriñ Abdou Lahad Ka maire Touba mi ngi leen nuyu mi ngi leen di siyaare mi ngi leen di baloo ak itam li tax ñëwut fii yebal ñu fi ñun liggéey yi nga xam ne kilifa yi ñu ngi koy liggéeyloo fii ci biir dëkk bi ak fële ca Ndakaaru dafa génn nekku fi ne dégg na sax woote bi ak bëgg mu ñëw fi lool waaye xam naa ne dana fi mës a ñëw siyaare leen ndax dëkk bii di Pouf di ab dëkkam la bi ñuy ñëw mi ngi ñu booleeg Serigne Ka Maam Cheikh Ka Ndonga Gueye Bassirou Sylla ne bu ngeen demee Pouf di siyaare leen ma sëñ bi ndokkal leen ma ko ci bés bi te xam ne dëkk ba sama dëkk la te xam ne màggal gi sunu màggal la nee na dey sëriñ bi mi ngi ñaan yow mi ko jiite nga yàgg fi lool te ànd ak ak wér te yokk lool yokk am na waaye na yokkuwaat dëkk bi nag man mi day sama dëkk manit ndax sëñ Seex mii ci sama wet duñ ñaar benn lañu bu ki defee yéenin ngeen nekk suñu sëriñ ma amaat fii samay sët ak samay jarbaat muy sëñ Murtala ak sëñ seen ak sëñ Xaadim ñooñu di sama njaboo nekk fi kon dëkk bi ñun mënuñ lu may fonk mun mënuñ lu may jàpp ci te lépp loo xam ne lii ñu ngi koy dox fii leer na sëriñ Seex mii maa ñoom a koy ànd ba lañ bëgg ñu am ko ca li nga xam ne nag mooy mbirum courant bi courant moom dafay lu diis la sëriñ Cheikh Bara Mati lay mën a am ñun mënuñ ko ndax ñun fañ nekk sax moo ñu fa teg di ñu liggéeyloo moom bu noon booram réew mi tey balaa jant fenk soxla naa nangam dañ ko fekk jox ko ko ñu nag ay taalibeem la ñu koy liggéeyal nekk yéen it seen i taalib di leen liggéeyal bii daaw wala daaw jeeg bañ ko fi waxee la benn mètre courant ñëwut Tuuba waaye saa bu ñëwee da ngeen am loola nag la mu waxoon def na ko ñun moo ñuy may moo ñuy defal defal leen yéen itam te ñun ñëpp ak njabootam la moom Cheikh Bara kon ñu ñaan li mu man mu man ko déwén lu ko raw ñu ngi ñaan lu muy def mu def déwén lu ko raw yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla dimbale waaye ab Abdoulaye nee na amul lenn loo xam ne lii bañal na ko yen waa Pofdy ndax poof di day man su ma amoon ñaari dëkk fekkoon ne ñaari dëkk la am benn bi caayoon la benn bi poof di loolu sëñ Cheikh Mbacke mi xam na ko nee na tam doon nañ ko wax fàkk ki fàkku yoon wi waaye amuñ ndaraan ñun peel lañ am peel bi tibb suuf te peel bi ca biir nawet la paan ba léegi fa mu tëdd ku fa dem fekk ku fa jógu fa loolu rekk moo tee loolu am ndax amul lenn lenn loo xam ne lii ku sant Mbàkke wala ku sant Buso wala ku sant Faal dana ko ko sant te mu am ca lenn lu muy yox yoxi lu muy daldi koy def moom daal jox na leen boppam jox na leen man-manam jox na leen lépp lépp nga xam ne mairie yi war na koo def mairie àttan na ko soo ngeen ko ko waxee soobee yàlla yónnee Serigne Touba dana ko def ñoo ngi nuyaat bu baax Serigne Cheikh Bara Lahat mii du sunu xarit du sunu kilifa di sunu Serigne. lépp loo xam ne ña nga ca mu nekk ca loola ñoo ngi koy ñaanal moom it yàlla dëggalal taxawaayam guddal aw fanam ma Abdoulaat Ka nee na pof di dem la yéen ay mbokkam ngeen yéen ay ab sëriñ ay sëriñam ngeen kon nag mi ngi toog du leen déglu lu ngeen nekk ma ngi nekk ca jërë geen jëf